donc ñoom seen i seen i président moo nekkoon ñu naan Macky Sall dictateur loolu lañ doon yuuxu fi nga xam ne mooy kaw oto bi. mais yàggul dara moo tax ñu gaz moo tax gaz ba sapp sapp moo tax ñu gaz gaz ba sapp sapp sànq ñoom député yi nga xam ne moo ñëw suuf si. gaa yi jot saf sàpp euh, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ñii di euh, euh, député yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci Yewwi Askan Wi gis nañ sànq fa fay sa cité kër góor gi gars yi leen ay grenades yu saf sàpp ba ñi sa jot nañ cee ñam-ñam yu neex a neex a neex a neex cuuraay nañu ba ñu saf lami waaw ayca mi ngi noonu ami internet yu jot na TV ñu ngi di man man li ma caaxaan mooy lacrymogène bi lan lañ xamu ko bouteille bi moom dafa ëpp bouteille bi ëpp na bouteille bi Lamine ëpp na bouteille bi Lamine kenn xamu ko sax xamu ko na saf na saf voilà jot na jot na TV en direct fii nga xam ne moom mooy ci VDN bi ci diggat diggante euh, par euh, siège parti PRP ak euh, lii di siège Ousmane Sonko ci distance boobu nekk ni ci fi nga xam moom mooy VDN bi yéen ñi suivre jot na TV en direct gis ngeen rek li nga xam ne moom moo fi xewandi e, gone yi daa yéen commencé taal na gis ngeen falaa mi ak xeer yi mu fi safe sap fii waaye nag force de défense de sécurité ñoom ñi ngi def seen liggéey bu mucc ayib liggéey bu am solo boo xam ne ñoom it amal nañ ko depuis sa matin ba léegi nii seen jàmmaloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy e, xale yi di sànni jamono ji ci suñu ginnaaw sànq gis nañu xeer yi doxuñu ginnaaw ba ñu daw waaye nag mais soxna si yow moom nga gisee waaw tey moom la Keur Massar moom gars yi xaw ma nuñ ko mooñaale mais moom sax na sap góor yaa ngi jooy jigéen ñi moom nan lañ war a def a ngi jooy comme tooñ moom kenn defut ci jooy suñu rongoñ yëpp dafa jeex tey acca kuy jooy te xamuta gisoo lu lay dóor moom ah, doy na waar kon nag ah, jot na TV en direct ak ah, jot na TV en direct MTV en direct fi nga xam ne moom mooy ci ci VDN bi jamono ji ñuy wax ak yéen Euh, mu tàng na cër gone yaa ngi gën di taal di gën di euh, gën di euh, jige si waaye nag sëñ ful bi nga xam ne kenn na sànq xale na nag nañ ci beneen mbedd xaw ma nag fan lañ jëm ci ban côté lañ jëm waaye nag gis nañ benn bu takkar naa nag ñi force de l'ordre ñi ngi jàkkaarloo ko ñi nga xam ne mooy xale yi ci mbedd mi gone yi di taal ak yor seeni pneu ak seeni xeer et pour le moment yéen gis nag saxaar si di gën a bëri saxaar si di gën yokk yokku xale yi dugg nañ ci koñ damaa xamul ndax fu mu jëm nañ ci bàyyi xel baax ndax xeer moom xamuñu fan lay fan lay fële waaye nag waaye nag dama koy wax rek grenade saf na grenade tey moom ji xaw ma nag luñ ko luñ ci booleel waaye nag kenn xamul da ca boole kaa nekk moo ñaaka poobarak lu ne <laughs> waaye daal bu fekkee ni euh, diaspora bi ñu ñuy dégg nañ ñu yónnee lu ñu jënde jënde meew <laughs> xaaral ma bala gars yi benn asa waaye nag mais pour le moment métti na lool métti na lool métti na lool euh, gis nag tekk am na ci ñi nga xam ne mooy force de l'ordre yi jamono ji ñoom ñi ngi daal di armé wu taxaw di xaat dañ kenn koo xam ne daf leen di bett euh, pour le moment ngeen di ci en direct yu jot ne ci euh, euh, fii mooy fii mooy mooy fii mooy euh, ci veden bi ci fi nga xam ne moom mooy ci pont bi dend ak fi nga xam ne moom mooy siège yu PRP ak siège su parti bu Kër Maodo ñi ngi foofu ci côté parti bi ñi ngi foofu jamono jëlee ñi wax waaye ñi ngi seen député yaa ngi nii di ñëw député assemblée nationale ñi ngi nii di ñëw député yaa ngi la ñuy seen nii wala député yaa ngi nii di dox di ñëw député yaa ngi nii député yeewi askan wi la ñuy ñoom ñu ngi nii ñoom ngeen di seen nii ñoom euh, ñu ngi nii député yaa ngi nii ñoom ñooy député bu yeewi askan ñoom la ñuy seen nii muy dox jëm ci fi nga xam ne moom mooy siège PRP voilà ñu ngi noonu ñoom lañuy ñuy seen ñoom ñooy jàll noonu ñoom ñi nga xam ne ñooy député PRP yi jóge nañ ci jëm ci kër euh, siège u PRP la ñu jëm nii euh, ci kii euh, tuuti gis nga réaction bi ni mu demee. gis nga rek ñi nga xam ne ñooy député PRP ñoom ñooy jàll. ñu ngi noonu di jàll. jëm ci siège te kaaral mhm. xam naa ne mooy yëf yi moom tàng na. Mhm. tàng boo xam ne fas daloor yi sax di instant yi dañoo tax. Mhm. di xool booy aca mi ngi noonu ñu gën a daal di ànd ak yéen en direct ci Jotna TV en direct MTV euh, di liggéey nag liggéey bu mucc mucc ayib liggéey bu rafet boo xam ne gars yaa ngi liggéey fii euh, ku ci nekk nag di joxe sa réaction ci reporté lamin dama lay bàyyi rek nga doxal ma daal di soufflé <laughs> donc ñi noonu Aba sànq mbaa constaté nga nga xam ne l'arrivée des députés de la coalition Yewwi Askan bi ñoom ñoo nekk di dem noonu fi nga xamante mooy siège PRP ñu noonu di dem donc euh, boo xoolee tamit siège PRP am na ay camion ay auto gendarmerie yoo xam ne ñuy taxaw foofu noonu fait face euh, siège bi donc euh, buntu bi tëju na ñoom it ñoo ngi noonu di avancé je pense que ni duñu jàdd ki nga xamante ni mooy siège bi donc ñoo ngi noonu di romb di dem bu ñu continuer en face de nous tamit saxaar bi ngay gis ci tàkk-tàkk bi xale yoo ko taal donc xale yee taal fi mu ne nii dugg nañ ci koñ yi ci ruq ñoo ngi nekk fi nga xamante ni mooy beneen bi beneen bi si si si wetu pont bi en face euh, euh, fi nga xamante ne mooy résidence Mamou ak euh, immeuble yu ndaay bi côté boobu noonu la ci diggante bi wala ñu nekk nii pour l'instant donc tamit boo doxee yaa ngi jëm fi nga xam ne mooy siège PRP donc muy noonu pour l'instant calme am na pour l'instant donc euh, policiers yaa ngi taxaw xale yi dugg nañ ci koñ yi mais n'empêche yaa ngi gis li nga xamante ne mooy saxaar si aussi takk-takk yi ñu seen aba maa ngi lay joxaat euh, kaddu ji nga continuer waat ak internet yi ñuy seenaan euh, dete merci beaucoup Lamine euh, macha allah ci commentaire yi nga xam ne yaa ngi koy def fii ñu ngi ci VDN bi en face des Etats Mamoun côté PRP ak euh, Kër Maodo waaw yéen a ngi dégg yéen a ngi dégg foofa foofa foofa foofa foofa foofa dal na foofa yéen ngi dégg ndax euh, fi mu nekk nii circulation bi sax dafa taxaw pour l'instant circulation bi dafa daal di bloqué foofu l'instant Euh, léegi gars yi te ñoo dem xool yi côté bële rek ñu xool embouteillage bi am foofu euh, ndax gis nañ gis nañ euh, seen oto bi bi mi ngi folate fële ndax embouteillage bi foofu dafa daal di taxawee ni pour l'instant fi ci ci pour l'instant waa gis nga am na ko naan ma les gendarmes sont fatigués ñëpp a sonn ñëpp a sonn ñëpp ñëpp a sonn yi nañu reporter yi sonn nañu eh, ñëpp sonn nañu ñëpp sonn booy ñoom ñëpp ci terrain la le moment gis ngeen nag sax saxaraan si day gën day gën a jolli day gën a yokk day gën a jolli day gën a yokk pour voilà gis ngeen ngeen saxaar si ci kaw gis ngeen yéen ko gis yéen a ngi gis saxaar si ni mu demee ñi nga xam ne ñu xale ñu mu daal di euh, taal fépp foo xam ne rek euh, ay voie la booy taal nañ ko ngir rek ñu libéré seen leader fii di Ousmane Sonko ndax mu dindi barricade yi nga xam ne def nañ ko ci def ko ci def nañ ko ci def def def nañ ko ci këram barikaat barikaat yi nga xam ne daf nañ ko fi nga xam ne moom mooy ci ci ci këram loolu la xale yi ñu ñu jële ko fi ñu jële ko fi pour l'instant ba tax nañ jaral lañ ñu génne poxo poxo manifesté wu taal ay pneu sànnante ay xeer ak force de défense et de sécurité euh, jamono ji ñuy wax ak yéen ñu ngi fi nga xam ne moom mooy ci wetel bi en face de résidence Mamoune voilà sànq gis ngeen rek ñi nga xam ne député Yewwi Askan Wi ñoom it ñu ngi jëm ci siège bi nga xam mooy siège bi xam naa dañoo génn ci siège yu parce que kër Maodo ndax boo xoolee ñaari siège yi ñoom ñoo daal di génn génn génn génn nañu foofu euh, foofu la yéen a ngi seen ba léegi nii li nga xam ne moom mooy takk euh, tàkk yi ñu nemmeeku ci kaw euh, tali bi balaa ami internet ñu suivre ami téléspectateur ñu suivre euh, gis ngeen en direct sur MTV ak jot Jotna TV gis ngeen nag jamono ji ni wax ngeen nag xale yi defoon nañ ful bu am doole mais dañoo jékki-jékki rek jàdd kenn xamul fu ñu jaar nañ ci nañ ci bàyyi xel baax na ma ñu gën a ci roxe ak seen seen seen i xel ndax ful bu am doole lañ seen mais booy accès wuñu dañoo daal di dugg si si si nga xam ne moom dugg si nga xam ne moom mooy si si mbedd yi ñuy wax ak ñun nag bu ñu xoolee nag ci kaw autoroute euh, bi dafa daal di bloqué euh, oto yaa ngi ne tekk taxaw mooy voie bi nga xam ne moom moo jëm Dakar jamono ci de ndax foofu dafa ay euh, affrontement ñi ngi seen li nga xam oto bii di waa BIP ñi ngi foofu jamono ci voie bi benn faaru ci moom daal di libre ba dem beeg dikk bi moom dikk bi moom jógee Dakar libre waaye nag dem bi nga xam ne moom dem bi moom dafa daal di saturé pour dem Dakar voilà ñuy fàttali rek daal ni nga xam ne dañuy bëgg a traversé <laughs> yaa ngi fàttali nga xam ne dañoo bëgg traversé itam Dakar fi mu nekk nii fii dafa daal di euh, saturé ci saturé mais nag retour bi yi bëgg ñëw yi nga xam ne nii ñëw tamit retour bi euh, moom libre na waaye tamit nag dafa saturé benn moment ci voie bi nga xam ni moom mooy voie bi vétérinaire bi jëm Dakar ay retour bi. encore une fois chers amis téléspectateurs chers amis internautes ñu continuer euh, ci commentaire yi. fii euh, fii nga xam ne ci vétérane bi euh, gis ngeen yéen a gis yéen a ngi gis euh, safara si ba léegi ni ñenn xale yi sànneeti ñu xeex dañu xool xam ne ñuy doxal seen stratégie oui ou non maintenant yéen a ngi yéen a ngi gis li xew fii tey cité Keur Gorgui tamit jëm ci. fi nga xam ni moom mooy ci peex tee bi tamit nii la mel aussi foofu tamit am na ay affrontement ak force de l'ordre yeeg euh, nga xam ne mooy xale mais nag fii moom pour l'instant xeer amatul grade amatul ku ci nekk da yaa ngi teg ñaari kaa yi ku ci nekk yaa ngi nii teg rek di déglu sa di déglu sa morom a xew ku nekk yaa ngi teg ci benn côté bu ne taxaw di euh, di suivre lu nekk ci ñaari camp yi muy manifestant yi ak ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre et de défense sécurité ñoom ñëpp ñu ngi daal di taxawal yi mba pour leçon yéen a ngi seen xale yi nële xale yi ngeen di seen nële xale yi ngeen seen nële gis nga leen ñu ngi taxaw xale yi ngeen di seen non avant dina ma rey. am na ku ñëw biir dëkk Italie comme orange ma ne ko maa ngi koy gërëm Omar Gueye la defe naa waaye Omar yaa ma gën a ñu nekk fii Sénégal man yéen ko ma leen. mi ci boole xaraba. waa bitim réew laa gën. voilà voilà voilà ami ami internet yi gis ngeen gis ngeen. mbir mi ba léegi nii tuuti man dama dama xiiti ma sonn booy dañoo taal Lamine Lamine naa la bàyyi rek nga doxal tuuti ma Aba yoo xasu na Aba ñu voilà vous direct sur Jotna Média MTV TV One News comme euh, ni koy faral def tout donc Aba boo ma joxee kàddu ji dam ci sawar aussi continuer waat li nga xamante ni mooy bi euh, ah, ci li ñuy jot a gis euh, ci tali bi donc euh, sànq xale yi duggoon nañ ci ci coin yi mais maa ngi gis ay mouvement ay mouvement yoo xamante ne muy am ci ci digg tali bi instant bi nii ci jamono ji ñuy waxee nii ak yéen am na ay mouvement yu commencé am ci tali bi donc peut-être les manifestants ñoo commencé waat di génn. boo leen di xool ñoom ñoo nekk noonu ñoom ngeen di seen noonu ci kanam voilà donc sànq comme ni ma ko waxee voilà ngi dégg yéen ngi dégg ay ku grenade lacrymogène dóor nañ ma ne ko dóor nañ dóor nañ sama gars yi sonn nañu si suuf de ah. donc gars yi nañ ñu toog taxawaay bay yàgg gars yi ñu toog donc bàyyi mu toog ànd ak ñoom mu ngi noonu saxaar saxaar baa ngi ne ngeen ni seen donc fas de l'ordre yi waaw mujjee nañ dugg si beneen sens bi yaa yi si gis yaa ngi seetlu noonu ñoom ñoon taxaw noonu ci kanam jéem nañ dugg si beneen sens bi pour dem euh, euh, disperser li nga xam ne mooy xale yi fa nekk di taal donc duggee nañ beneen sens bi dugg fa yéen a ngi dégg ku ku ku ku euh, grenade lacrymogène yi ñuy dóor ni donc buum buum noonu ngeen di dégg ouais voilà. waaye 487 nga xamante ne ñuy soog a ñëw ci live bi ñoo ngi nekk fi nga xamante ne mooy VDN aussi aussi euh, ci VDN bi la ñu nekk ni nii tout près du du siège PRP PRP ñu sore ñu aussi fi nga xamante mooy point bi nga xamante ni mu ngi nekk euh, ci euh, Liberté 6 extension bi Sacré Cœur bi noonu donc. derrière nous on a ki nga xamante ni moom la ñu woowee Goutret et résidence Mamoun moo nekk suñu ginnaaw donc euh, issue bi nga xamante ne fi ñu nekk nii mooy jëm tout droit aussi dem ay Liberté 6 et tout donc fala la ñu nekk nii xale yi nekk euh, di di taal di manifester wane seen mécontentement ci ci ah, ci li nga xamante ni seen gis la peut-être ñu gis ni. Euh, Ah, li état bi di doxalee donc li nga xam te ne mooy le président Ousmane Sonko ñu tëj ko mettre ko si résidence euh, surveillée peut-être euh, loolu tamit euh, sabab lu la li nga xamante ni mooy seen i jaamarloo yi jaamarloo ak li nga xamante ne mooy takk der yi donc moo abaa maa lay bàyyi nga doxal. abaa yéen ci gën a dee moom man de maa bi. voilà gis ngeen gars yi ñëw ko ci son rek man lay waxaan mbir mi voilà noonu lay noonu lay demee rek. Eh, eh, saa euh, su ne suñu amee téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy topp ñu suivre ci réew mi ak ci bitim réew yëpp en direct euh, ñi daal di continuer rek euh, li nga xam ne mooy commentaire yi ci ngeen sànq rek fii booy taxawoon ñi nga xam ñoom ñooy force de l'ordre de force de défense de sécurité ñoom dañoo daal di wër ndomb ba gone yi daal fay traversé ci biir xale yi daal di daw mais gis ngeen nag xale dañoo taal li nga xam ne moom mooy ñaari voies yëpp booy taal nañ ko jamono jile ngeen gis ni Euh, ngeen gis ni fii nga xam ne moom mooy ci feneen euh, bi ci kii bi nga xam ne mooy mooy mooy euh, moom mooy affaire bi voilà voilà voilà voilà voilà gis ngeen gis ngeen gis ngeen da ngay wax. déedéet dafay noppal. daa amoon noppal. ba fay ba fay nga.

oto ak këram benn karkar ñu avancé ñu avancé kaay kaay lii kay mën a xew lii kay mën kër sëñ Mbari Thiam ah, ministre voilà ah. gis ngeen euh, fi nga xam ne moom mooy euh, kër Serigne Mbaye Thiam ministre la ñu taal nii moom ngeen gis ni taal ci benn karkar gis ngeen ne kër gi lañ taal ni muy kër euh, Serigne Mbaye Thiam ministre moom la ñu taal ni gis ngeen force de l'ordre yaa ngi taxaw fi ni gis ngeen euh, kër gaa ngi nii defant kanamu kër gi kër nag moom jàppagul waaye nag fii ngeen di gis nii mooy kër Serigne Mbaye Thiam ministre moom la ñu daal di taal ni gis ngeen taal lañ foofu karkaar bi taxaw ci porte bi taal nañ kër gi yëpp gis ngeen xañ na sapeur léegi mu ñëw ndax li ñuy eh, safital takk dere ñu ngi fi taxaw eh, di xaar sàppor ñu ñëw mais jamono ji ñu wax yéen nag moom kër gi moom taal nañ ko taal kër gi gisoo gisoo kër gi mi ngi tàkk ni oto mooy tàkk baa ngi tàkk mais kër gaa ngi saxar ci biir boo xoolee kër gaa ngi saxar ci li nga xam mooy ci biir mais nag oto bi mu tàkk tàkk na ñu gën a avancé ñu gën a avancé xool ba xam fii nga xam ne mooy kër Serigne Mbaye Thiam euh, ministre moom ngeen ni gis nii moom mooy tàkk nii moom mooy tàkk nii ñu ngi xaaral xaarandi li nga xam ne mooy sapeur sapeur sapeur pompier mu ñëw xaarandi li nga xam ne mooy sapeur mu ñëw gis ngeen katkat bi ngeen di seen mu ngi tàkk noonu katkat bi ngeen di seen mu ngi tàkk noonu ñoo xamul ba xam nag euh, kër gi jàpp na wala déet waaye nag karkat bi moom mi ngi tàkk karkat bi actuellement nii moom mi ngi tàkk ci buntu kër bi yëpp saxaar ci biir kër gi euh, ñi ngi xaarandi euh, sapeur pompier fi ne force de l'ordre ñoom ñu ngi fi taxaw ak seen oto bi ñu booy ñi ngi ci ginnaaw booy ngi ni seen noonu ñu nga ca ginnaaw ñu la taxaw ci kaw ci kaw coin kaw tali bi fi la ci la booy taxaw nii mais gis ngeen nag force de yi ñu ngi taxaw ñu ñoo fiy jële booy ñu ngi taxaw ni di xaar sapeur pompier mais nag egseguñu peut-être yoon bi moom mooy xat mais dañu jàpp ne ami internet yi kër gii di kër euh, Serigne Mbaye Thiam euh, ministre voilà moom ngeen euh, gis noonu daal di jàpp noonu moom ngeen gis kër gi ngeen di seen noonu voilà kër gi ngeen di seen moom moo tàkk oto oto bi lañ taal ak ak buntu yaa ngi dégg voilà oto bi ngay dégg ma kalaate noonu këram waay oto boobu oto bi ngeen di dégg noonu mooy explosé oto bi explosé noonu air xam naa air bag bi lay doon oto bi explosé noonu kër sëriñ ministre euh, sëñ Mbaye Thiam mhm. na kër gi laalaale na kër gi laalaale na kër gi euh, voilà kër euh, Serigne Mbaye Thiam ministre ngeen noonu Ah. ay ay du yem ci bopp borom ay du yem ci bopp borom li olof naan ay du yem ci bopp borom mbir mën nga ko commencé waaye nag xamoo fan la jëm <laughs> ah, journaliste si nga jëm journaliste ñaari at taxawal taxawal taxawal non taxawal taxawal leen taxawal rek xam ngeen ba xam booy maaleykum salaam waaw d'accord merci